yaa gën lu nuy bëgg a yaa gën lu nuy dofu di mébét yaa mata bëgg mata wut yow ko la am falu di buur yaa gën lu nuy bëgg a yaa gën lu nuy dofu di mébét yaa mata bëgg mata wut yow ko la am falu di buur jóge nga yow faw si suuf doo del yow mukk bi suuf sabe nga doo sappee ko soof ñam nga wudun na bëgg xuur sant nga yow ta sopp nga ita soppulu topp nga ita toppulu yaaram bi nga jëfi góor yaa mën a sës rekk yaa mën a saytu gaa yi buur nga buur ak gaa yi buur si yow wóor naka ma xam ne duma góor te yër ma xam ne yaa di góor laa ñëw tanaa jaajëfe góor saw sa tax nit ñëpp suur man duma lëf duma dara te kenn du lëf dara yow yaa di lef ñaa di dara laq nun bu nu dóor ca guddi nga woo mbër yëpp daani ñu xëy di miim nga woote ca bëccëg daani ñëpp ñu fab na xiim ku lay sóoru day ndaw rekk tey ndaw kenn yarul asal ku nu yar wax mu def ko da sant moom ku not bépp noon ak bépp soppe ba tëj këram di jaamu boroom ëpp naa jéema def moroom danga bëri yabu xam-xam rëyum xel te dëru fit rëyub juddu nangoo suufe gëm yàlla yaanu sëriñ nga bu fab dib sang dib jant dib gawar di buurub julit dib jaamu ka tax nga ñëpp luum waliyu nga muñ ka nga ab tam nga yaaje feñ ku tedd nga yaatee ñi berax ñëpp bokk giim keroog ba lislaam di jooy bay xaaj yuuxu ca kaw sëriñ si sépp na fi muy woote wallooti yow rek a jug ne ko man ma yaar la kenn la laal wallaahi lii na tey yow rek a sañ woote yéem naa la yaa mën muñ yaa yaa bëri ngor sa ba woon ca Ndakaar tey naa ci wax nee na keroog daba woor kóoram ga mujj ko dog ñu nangu kaala ga kaamil ba ñoo fuuti nee ñu ba ma ko nekk boo xam ne cey na mu mel daaxan la nam xet ga bon ay rabu fees kooti nee bam na jaana xa ñub tànkam barab ya sar daajal beneen ba dugal moom it ñu jam kooti mu jàng baqara ak imran kilee ma di julli tey ñaana kay boole ka muslooti mam jaara mooy ka fa ñëw ñax fa naa ko fa yit bul ci tabul jàq ngir say nattu duñ tuuti yaa taw diina ji tey yaa arsu ñu xam wallaay yow ku la bañ lum jëf ñu bañ kooti sëriñ si ko ndikk leen sëñ bay waxoon na ko kët manin ma dellu ko wax ñëw leen ta jajjooti faraas ak texeyam leen nit taxut bay jak mooy njëkk ak mujj yam pas-pas ñuy wuute ñëw naa di sant si ngir yaa ngi nii na xasar yaa féete kaw ku ne tey kenn dootu soorooti bëban nga may maye kii barke nga neen yu xam ak yenn mbir yu ñu lam yooy xel du daj kooti yal naa di dab bi ci yow bay jeex ñu naana man manit ma naana man nga naa mu ñongooti nan daa di jug jajjuwaat tey jàpp tey gën a ngoy bambaay saxaar gi fi ñëw kum raw nga lonkooti dogganteeg tele wax naa wax ba ñëpp naax ngir mbégtax xol bu fees bay ba lu tuurooti bii baxru laa dikke tey feeg maa ngi man di la way yaay kenn yaa màgg yaa gën ñëpp yaa wuute jànguma baru sax daay way di wax li ma yëg Seex Bàmba mooy ka ma yëg géejam galay roote géejug cofeel gi ci man to xam ya mooy la way lu fees dafay tuuru ku man di sëriñ bi sarax naas ndoole ndax ñu jëfal lëlëf لوراي لي نفاس ام دول رك كاي وارال مفاس تا يالا يالا دافار گيب دافار سونو مير بدور ياخو تامينو دايلو فاو كو يو كو يالا والو غا فاتيب